du ci nangu ci bañ yooyu yëpp boo demee mooy raayatu école mooy uslub yi école yi di jaar yëpp pour génne nit boo demee dañ fa fekk muy école boo xam ne bu dëgër la ci loolu mu des nag xam-xam dafa war a joxe natiija natiija bi ñu war a àgg mooy xam-xam dafa war a damaanal nit mu dund ci àddina bi dund boo xam ne dund jàmm la dund boo xam ne dund bu tedd la dund boo xam ne am na dundam am na lekkam am na këram am na naanam yooyu yëpp xam-xam daf ko war a garanti nit su ko defee gannaaw xam-xamam fii te daara yi attanatut mbooleem feeñu waaye xam-xam yi waaye am nañ ñu bokk ci daara yi te am yeneen gisukaay xam-xam ñoo ñëpp dama leen di woo ñun ñëpp ñu ñëw bokkaat seetaat ñun ka asxaabi Cheikh Ibrahima fi Sénégal ka taalibee bàyyi ci Sénégal lan lañ mën a def ci àddina bi lan lañ mën a bokkee lan lañ mën a tabax fan lañ mën a àgg ah? yéen ñëpp loolu seen rôle la yéen a ko war a seet ubbil naa leen buntu ñëw ngeen daje ñëw ngeen dajaat ba tey daje yooyu di bu leen ko dagg dee leen continuer ñëw di daje di waxtaan bañ gis yoon boo xam ne yoon bu dëgër la ñun ñëpp ñu ànd soobu ko pour wax ne ñun taalibe Baay ñu ngi nii suñ participation ci développement Sénégal mi ngi nii ci xam-xam ci économique ci am-am yëpp suñ participation ngi nii te mën nañ ko am bu ñu ci yàlla di buñ ci buñ ci dogoo buñ ci dogoo rek yàlla dimbali ñu si buñ ci dogoo rek yàlla dimbali ñu si nañ taxaw sóobu yàlla mu ne sóobul rek boo sóoboo rek ak nga fi nga jëm. première pierre bi njëkk a teg ci jumaa ji bokkuma jumaa ji njëkk ji jumaa ji bees ji dañ ko tëralee ba pare di génne di ñib si ci kër gi benn naari gànnaar xaritam loolu ñu ko wax Abdourahman bul xaaj mu ne bàyyi yaakaar nga ne danga fekkee pare jumaa ji mu ne ko jumaa ji pare na fekkee naa ko jeex na pare na parce que ba mu tegee rek la xam ne yàlla mooy àggali te yàlla mooy àggal yàlla dina ko àggal bon ñun tamit nañ pare teg rek dogu te xam ne yàlla àggali na ko waaye buñ pareewu doguwut dañuy coow rek di wax yoo xam ne jarta wax mer yoo xam ne jarta mer fekk ci ñun luñ def d'abord ba xam ndax war nañoo mer ak wala ñoo mer ñu ngi aw mboolem taalibe Baay yépp borom xam-xam yi surtout borom xam-xamu beneen par bi waa waa yi ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw daje bu baax a baax di daje di jàngat di jàngat di jàngataat suñu bopp ba xam xam-xam yi ñu am ci àddina xam-xam yi ñu am ci diine muy benn capital bu mag a mag naka lañ koy jëriñooyee. la ilaha illa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah oh, oh, oh.